sëriñ Thierno Faty Diagne Diouf sëriñ na Faty Diagne Diouf mu ngi feeñ jamono nag ci atum 1927 ci dëkk bii nag waajuróom goroon di daaru Diouf daaru Diouf nag mi ngi ci suuf si nag di Kajoor muy doomu soxna Faty jaañ ak sëriñ Mor Diouf Jati moom sëriñ na Faty Diouf jaañ mi nag bi mu feeñee jamono waajuróom nag sëriñ Mor Diouf Jati maam Thierno Ibrahima Faty Mbàkke ndaamal daaru nag la ko tuddee mu bokk nag ci njaboot gi sëriñ Mor juuf Jati nag faye maam Thierno Ibrahima Faty Mbàkke ndaamal daaru ñu wu jigéen wii nag di soxna Faty Diagne moo tax nag ñu koy woowee nag Serigne Thierno Faty Diagne Diouf mu feeñ na nag ñu mu bokkal nag soxna Faty Diagne ak Serigne Mor Diouf nag jati ñu mën cee ràññee nag Serigne Abdoul Khoudous Diouf ibnu soxna Faty Diagne ibnu Serigne Mor Diouf jati Serigne Omar Diouf ibnu soxna Faty Diagne ibnu Serigne Mor Diouf jati ak moom Serigne Thierno Faty Diagne Diouf mi ibnu soxna Faty Diagne ibnu Serigne jati ñaar nag la bokkal waajur wu jigéen nag ak waajur wu góor ak moom nag muy ñett waajuram wu góor wii ko meññ nag di sëriñ Mor Diouf Diatty ci jàmbaar yi toppoon nag ci ginnaaw ku baax ki sëriñ tubaa Seexul Xadim nag la bokkoon liggéeyal na Seexul Xadim nag lu takkoo takkoo takku Seexul Xadim itam nag bokk na itam nag ci ñi sant Diouf nag ñi mu seexal ci tund woowu ñu tudd tund soowu jant nag fa la nekkoon lu takkoo takkoo takku itam nag defal na ko fa Seexul Xadim ginnaaw Seexul Xadim nag la fi bàyyi ko mu nekkoon itam nag ku wóolaranteeg Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru tudde na ñeent yoon doom nag maam Thierno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ba ci doomam ji nag ñu fas yéene waxtaane tey jii di sëriñ Thierno Faty Diagne Diouf mii ci ñeent ñun tudde maam Thierno itam nag ci la bokk moom sëriñ Thierno Faty Diagne Diouf mii nag bi matee dal alxuraanul karima waajuram nag sëriñ Mor Diouf Jati moo woolu nag taalibeem bu ñuy wax nag sëriñ Ibrahima Gaye Diouf ci dëkk bu ñuy wax nag daaru mbooy di ko xamal ne daal sama doom ji nag yow yaa ma ci doy ngir mu jàng nag alxuraanul karima bi ko sëriñ Ibrahima Gaye Diouf nag jëlee nag daaru mbooy dalal Diagne Diouf mi foofu itam nag la wéy nekk ba ni sëriñ Mor Diouf jati nag génnee àdduna ci atum sëriñ Thierno Faty Diagne mi nag daana wax ne bis bi sëriñ Ibrahima Gaye Diouf mii nag mujjee nag wàcc si nag ay kaamil ci ndigal loolu nga xam ne nii nag waajuram sëriñ Mor Diouf jati nag moo ko ko digaloon ci ajuma bu jot ñoom ñaar nag ñoom ñoo àndoon ginnaaw sëriñ Mor Diouf jati nag la jóge ci dëkk boobu nag di Daaru Mbooy ñu yóbbu ko nag ci dëkk bu ñuy wax nag sanc cuun ci dëkk bii nag di sanc cuun di ko jox nag sëriñ basiiru cuun doomam nag la ko booleeloon ju ñuy wax nag sëriñ moor jama juufa ñu ànd sëriñ basiiru cuun nag jàngal na ko itam nag alxuraanul karim ginnaaw bi nag la fa bàyyi ko dem nag ci suuf si nag di mbaakool ci dëkk bu ñuy wax nag ture alpaate ci sëriñ majaañ géey ci loxoy sëriñ majaañ géey nag la mokkale nag alxuraanul karim bind ko ñu indil ko magam nag sëriñ daaru saynabu juufa mu jóge foofu nag dem nag ci dëkk bu ñuy wax nag daaru ture fekki woon fa magam nag sëriñ omar juufa boobu nag ma fa nag di jàng nag xam sëriñ Modou Touré nag moo leen doon jàngal xam-xam ginnaaw bu mu fa nekkee ab diir nag la fa sëriñ Omar Diouf nag bàyyi ko ko fa nag mu wéyal nag am njàngam ci loxoy sëriñ Modou ture bàyyi na ko faak nag ñaari taalibe muy sëriñ Ousseynou ndooy ak Abdoul Khoudous Ndoye ñu nekk ak nag seen sëriñ bii di sëriñ Thierno Fati Diagne benn fa sëriñ Thierno Fati Diagne bàyyi ko nag ci atum 1946 dellusiwaat nag ci dëkku waajuram ci ron nag ay magam moo xam sëriñ Abdoul Khoudous Diouf ak sëriñ Omar Diouf ak ki toogoon nag seen xalifa waajur di sëriñ daaru Seynabou Diouf laataa muy egsi nag ci dëkk boobu nag di daaru Diouf nag di fekk si nag ay magam jaar na itam nag ci dëkk bu ñuy wax Ngaxam fekki woon fa nag taalibe waajuram bu ñuy wax nag sëriñ Maadu Njaay bi ko sëriñ Maadu Njaay nag dalalee téye ko fa ganale ko fa jox ko fa nag addiye yu takkoo takkoo takkoo takku jébbal ko doomam nag ngir mu jébbalu nag ci moom muy sëriñ Jibril Njaay mu bàyyi koo fa nag fas yéene ñibbisi dëkk bii waajuram tëdd nag di daaru Diouf ay magam nag nekk fa magam moo ko jël nag def ko nag imaamu dëkk ba féetale ko itam nag lépp loo xam ne ni nag dafa jëm nag ci wàllu jullee nag képp koo xam ne nii nag bàyyi koo na fi képp ko am xewu jàmm itam nag soxlaa nag ku la tuddal sëriñ daaru sëy Seynabou juuf nag yebal nag rakkam nag sëriñ Ceerno Faati Jaañ Diouf mii bépp yónneen boo xam ne ni daal magam sëriñ daaru sëy Seynabou Diouf itam nag da koy yónnee mu jëm nag ci wàllu diine ji rakkam ji nag di sëriñ Ceerno Faati Jaañ juuf nag la koy yónni mu topp nag ci ginnaaw ay magam nag yor nag imaamu dëkk ba ak lépp loo xam ne ni nag soxal na ko ginnaaw magam sëriñ daaru Seynabou Diouf itim noonu itim nag la toppee itim nag magam yi nga xam ne nii itim nag ñoo toogoon nag toogaayu sëriñ Mor Diouf jati bi ba ni mu génnee àdduna nag ci xilaaf ak magam sëriñ Abdou Mboy Diouf mu nekki nag ku jaxasoog nag njabootuk sëriñ Touba Cheikhul Khadim gi sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke nag la jébbaloon boppam def ko nag ku muy xoole sëriñ Touba Cheikhul Khadim addi takkoo takkoo takku nag yit na ko sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ci bi muy jébbalu nag ci sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke dafa tombeek nag doomam ji nag di sëriñ Thierno Diouf maam bindoon kaamilu alxuraanam ba noppi keroog nag bi ñu ko indilee kaamilu alxuraan bi la ko booleek nag kaamilu alxuraan ba ak sëriñ Ceerno maam Juuf mii jébbal sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mu nekk nag ak jébbaloom nag ci sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke tuddee na sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke doom ginnaaw sëriñ Touba seex Abdoul Ahad Mbacke mu jébbal boppam nag sëriñ Touba Cheikh Abdoul Xaadir Mbacke jàppoon na aw yoon itam ngir dajale nag bépp addiye bu mu am itam na yit sëriñ Touba Cheikh Abdoul Xaadir Mbacke waaye sëriñ Touba Cheikh Abdoul Xaadir Mbacke itam nag yàggul itam nag ci jal bi bi mu jébbaloo nag ci sëriñ Touba Cheikh Abdou Khader Mbacke sët a gis di doomu sëriñ la ko tuddee sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke ñëw itam mu jébbal ko boppam tudde na sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke doom ak njabootam itam sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke itam nag la leen jébbaloon ba ci doomam ji mu fayee nag sëriñ Moustapha Mbacke Absa ñu gën koo ko jébbaloon sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke moo tax itam ñu koy dàkkantele sëriñ Moustapha Moustapha nag mi ci loxoy sëriñ saaliwu ci xilaaf ak nag ci mu jébbaloon boppam nag di doomi seexul xaddiim di sëriñ Touba Cheikh saaliwu Mbàkke itam nag na nag sëriñ ab sa doom muy sëriñ Moustapha saaliwu Juufa tudde na sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke moom maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru doom tudde na Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ibnu sëriñ Touba Xaadim Rasuul Mbàkke doom muy sëriñ Amdi Juufa mu wuyu nag des nag ci dëkk boobu ànd ak nag ay magam nekkit nag imaamu dëkk ba sàmmitim nag ndigal nag yi ko ay magam joxoon ba ni mu génnee àdduna bindkat bi ñuy wax nag Baye Lamine Diop di bindkat nag ci yoonu Mouride def na nag ay way nag ci doomu Serigne Mor Diouf jati bi di Serigne Thierno Fati Diagne Diouf soo delloo nag ci mbindum Baye Lamine Diop nit ñi xamal nag turandoo maam Thierno Ibrahima Fati Mbacke Ndaamal Daaru fi mu juddoo ci ñaari waajur nag yi ko meññi maam Thierno Ibrahima Fati Mbacke Ndaamal Daaru nag mi ñu ko tuddee fi mu jaar nag ci wàllu njàng mbooleem nag boroom xam-xam nag yi ko jàngal moo xam nag alxuraanul karim nag ba ci xam-xam te dëkk yu wuute nag yi mu jaar itam nag ci wàllum njàng ginnaaw bu mu jógee nag ci am njàng fi mu jaar nag ba ni mu delsee nag ci dëkk bii mu feeñe jamono nag te fa séene faa dunde nag li des nag ci ak dundinam di daaru juufa jaar-jaaram daal la bindkat bii nag di bàyyi lamin Jóob nag di ñu xamal ci ay way nag yu mu defal doomu sëriñ Moor Juuf jati bi ak soxna Faati Jaañ di trondoo maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru bi nag ñu teewlu ko Lamine Jóob nu yootil nag te ñëw xamle waaju xam boroomam mbarum lislaam salaam mu jàmbaar ju rëy la jom Serigne Thierno Fat Diagne Diouf mu sëñ Mor mu jatti mii da laa bëgg a leeral tuut lu néew lool ci ay mbiram Serigne moor mu jatteey baay ba yaayam ja soxna faa Tijaañ mi ngi feeñee Daaru Diouf wax ma am atam atam maa di 1927 teg na ca atum ñibbisik sëñ Bamba Tuubaa di am lëlëm Serigne Mor tudde sëñ Thierno Fat Diagne xarit ba nag di maam Thierno Ibrahima jàmbaar ja làqi ndam mu am ñaari mag ñum bokkaloon ndey de ak ci bàyyi Serigne Abdou Khoudous Omar Diouf ma wax la tam fa njàngam ma dooree sëñ Mamar Diouf di waajuram de ko dalal ba siin ba lum seen taxañ ko dem atum dalga 1900 yu teg nag 33 sëriñ Mor sëriñ Ibrahima juuf mii la woo këram sëriñ Mor ni sëñ Ibrahima Diouf jël ko yóbbu ko ne sëñ Cerno Fat Jaan Diouf dama bëgg rek mu xam te man alxuraan yow rek laa wóolu nag ci moom te it yaa ma doy kon alxuraan sol ko cib dënam mu jàng fa ab diir daaru mboy booba metti naat sëriñ na doon nun kët bu mag ñëpp yéem muñam demoon na itam mbaakol ca daaray sëriñ Madiagne Guéyoum Touré alpaat la nekkal ba am fa ndam mu àndoon fa ak doom doomi sëriñ bii mu njëkk a dem sëriñ Mor Jama Diouf Seyxu Ibrahima waajuram fa kër sëriñ Madiagne googee la mokkale alxuraan fa daaru Touré nee nañ fa lay jànge xam-xamam sëriñ Cerno ne foofee la nekkoon fekkoon na fa magam sëriñ Omar Diouf Jatti jël donga yam fa am ba muy dem de daawoo sëriñ Cerno Faati Jaañ mu jébbal ko dongaam ya ñaar ñii wax sëriñ Xoseynu Ndoy ak ku ñuy waxit sëriñ Abdu Xudóos Ndoy ñu baax lool ñu am ngërëm mu des fa ba 1946 amaat fa ndam sëriñ Moodu Ture woo ko ñaanal ko nag mu dem sëriñ Moodu Ture woolu waa Ture ñépp a teew mu kañ fa bu wér sëriñ Ceerno leeral fa pas-pasam ci kéemaan yi sëñ Ceernoy dajal rekk ci ngay xamee ni am nay ngërëm faw wit mu seexit it te ndam ba muy dem la jaar ci dëkk muy dëkk bëpp ku xam ki may waaj a wax xam nag ni jàmbar la ciw tundam di sëñ Mor Diouf mu jettee te bokk na ci kàngami kër sëñ moor Diouf mu jetti ma wax turam sëriñ du Njaay ngaa xam ku xam-xam ni lii ma wax lu wér la keroog daa wax ni sëñ Cerno dootu dem da koo tëye ab diir daa di jël doomi boppamit ku ñuy wax Jibril Njaay da jébbal ko teg ca tam li mu xëddiyam nag jël tegu fas ko teg ca kaw fasam wa mu doon wut dëgg di raay def ko aw xosam ni sëñ Cerno fas wi nag na yóbbule Daaru Diouf sëriñ Maadu Njaay daa bég ba sax ñëw nag daaru juuf daaru gépp a bég ñadi kilifaam bég nañ rakkit bekk ak i magam mosam samp fa daaray jàngalee doon imaam ja it mayee sëy ya tuddi doom ya tey jullee néew yi yépp itam sëriñ cerno yàlla def ci moom jagle yundi yéem nde doomam di ab taawam sëriñ cerno moom itam demoo njëkk a bind kaamilam nag ci sët yu sëñ mamar juuf sëriñ maam cerno maam juuf def na ndam sëriñ cerno juuf jagleem ci baayam lu rëy la it sëriñ mbakke mbay moo nuy xamal xam ci xam sëriñ Mbàkke Mbay nag ne sëriñ Cerno ànd nan lu mat ñeen fukki at waaye nee na la diw sasam sëriñ Cerno fukki kaamilam nee na weeru koor wu nekk la daa jàngal sëriñ Moor di waajuram wegoon na magam lool lool yërëm it ña di rakkam te taalibe baayam yépp fonkoon na leen yitam jigéen ñi di soxnaam yii yorin wii ñu taamu woon ci jullit bu baax nam leen yare woon rafet na tam njabootuk sëriñ Tuubaa gi sëñ Cerno lim ci jëf dana cof ca jëf yooyee dadul mbir mu neex a lim bataawam ba muy sëñ na Maam Juuf bindee keroog la jël kaamilam booleeg hadiyam ñu ànd dem ca sëñ Abdulaat yeesal fa njébbal ga kóllëreem ci sëñ Abdulaat daa sax ba baylaat laxas di dem mu jaayante ak seex jiili sët ba mu fi njëkk a gis la jël tudde moom seex jiili yàlla nan defar mbiram ba seex Abdu Xaadir Mbàkke laqoo la di dem da jaayante ak seex Saalixun Mbàkke moom itam mu tuddee ko am caatam sëriñ Serigne Thierno yàlla nañu yokki leeram ak i ndamam Serigne Thierno Diouf woo nag njabootam gi kenn desul mu waajal siyaar bopp njabootam gi ak ñoñam mu jël doomam ju ñuy wax Moustapha Saalihun ni leen na leen jiite ngir Baye Sall da koo xam-xamu xëram Serigne Thierno toolub ñëm bi bopp lëm la jël ko jox te boole ca mboq ak gerte sëb ak dugub yitam ca 2000 yu teg 3 ba muy wàjj waaja dem Tabaski la jox Baye yu rëy lii di ak mu jëm ca 2000 yu teg 3 la sëñ Cerno Faati Jaañ deyaaleeg boroomam baay barob nan ko ci wetam ci pàkkub sëriñ Moor Juuf na bur yàlla dolli leen kër yi kër ci biir si tam yokku leeri tëm te yàlla na yàlla sàmm sëñ Cerno ñim fi bax njaboot gi ak donga yeeg képp kuy bég ci ay ndamam ci barkeb yoneen baak na Bamba jëwriñam na am kër yu yaa Firdawsi yooyu kenn du xam limam jaar-jaar yooyu nag lañu bàyyi Lamin Jóob nag tënkaloon ci dundug nag sëriñ Cerno Jaañ Juuf mi mu dëkk boobu nag di daaru juuf ci ndigalul nag ay magam ba mat a jël soxna nag ñu boole ko soxna suñuy wax soxna maam binta juuf mook soxna maam binta juuf nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag sëriñ ceerno maam binta juuf soxna nagoy juuf sëriñ moodu juuf soxna maam awa juuf soxna faati suxra juuf soxna daahi juuf ak soxna jobbe juuf yoraatoon na soxna suñuy wax soxna nogay mbay mook soxna nogay mbay tim nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag sëriñ cheikh awa ballo juuf sëriñ moustapha saliw juuf sëriñ amdi juuf sëriñ Abdoulahad Diouf sëriñ Xaadim Diouf soxna Mbayang Diouf ak sëriñ Saaliw Diouf yoraatoon na nag soxna suñu wax soxna Ummu Jenn mook soxna Ummu Jenn itam nag am nañ benn bant muy soxna Faati Kubra Diouf yoraatoon na nag soxna suñuy wax nag soxna sëriñ Kene mook soxna sëriñ Kene nag amuñu nag ak njaboota soxna yii nag la dëkkoo woon nag njaboot yii nag la ci am mu taxawal nag daaray alxuraan nag ci dëkk boobu nag di daaru Diouf jàngal na fa itam nag ñu takkoo takkoo takkoo takku saxit nag ci ndigal yi nga xam ne nag moom la ko ay magam nag di digal mu génnee àdduna nag ci xilaaf ak magam nag sëriñ Abdou Mboy Diouf moom doomu sëriñ Mor Diouf Jatti bi mu ngi génn àdduna nag ci feebar bu ko tëral ci dëkk boobu mu nekkoon nag di dëkku waajuram di daaru Diouf ci dëkk boobu nag la génnee àdduna ci bisub àllarba fukki fan ak juróom nag ci weeru maamu koor ci atum 1424 nag ci gàddaay gi àllarba fukki fan ak juróom nag ci weeru maamu koor ci atum 1424 nag ci gàddaay gi dëppoo nag muy mercredi 13 août nag 2003 mercredi nag 13 août nag yëgal ko nag xalifa waajuram di sëriñ Abdou Mboy Diouf mu sàkku itam nag ci doomam sëriñ Modou Mbène Diouf ibnu sëriñ Daaru Seynabu Diouf ibnu sëriñ Mor Diouf Jati ngir mu jullee nag rakku waajuram wi di sëriñ Thierno Fati Diagne Diouf mi ci teewaayu nag kilifa yu takkoo takkoo takku nag ci tundu soowu jant woowu ñu denc ko nag ca wetu waajuram wa sëriñ Mor Diouf Jati ci dëkk boobu nag di Daaru Diouf soo delloo nag ci mbindum sëtam bii di sëriñ Modou Awa Balla Diouf di doomu sëriñ Cheikh Diouf bu Tuubaa aliya ci li mu bind nag jagleel ko nag maamam di aw wasar ginnaaw nag bi mu musloo nag ci saytaane delluwaat nag ci ki ñu boole bind nag muy buur bi tabaaraka wa taala di ko ñaanit nag liñ tudde tawféex ndax ci moom rek nag la mën a jóge julli nag ci ab yonentam nag ngeen gi mbindeef salallaahu taala alayhi wa sallam ak mboolem nag sahaba nag yi mu àndaloon ak képp koo xam ne daal yaa ngi roy nag tànku sahaba yi di ñaan nag ci sëriñ tuubaa seexul xaddim mi nga xam daal mooy yaakaaru murid yi nag àdduna nag ak àllaaxira def sallallahu taala alayhi wa sallam mu ngi koy ñaanal nag ngërëm dellu itam nag di ñaanal ngërëm sëriñam bi nga xam ne nii nag mooy nag seen royuwaay di lamp nag bu leen di leeralal nag di lampit nag boo xam ne nii itam nag ku ne itam nag mën na cee gindikoo mu ne ba tey itam nag ki muy waxal mooy koo xam ne nii itam nag jamono bu jot itam ñi ngi dajeek nag turam ak mbaaxam itam nag ci la ñuy wootee aw yiwoo mitim mooy lim ñu fàggul itam nag ci sëriñ bi doyloo nañ ko tey itam nag doy nañu sëkk kooku nag mooy sëriñ Mor Diouf Diatty yàlla na ko yàlla nag doolee nag di gërëm dolli itam nag di gërëm itam nag mbooleem nag ak njabootam doomam yooyu itam nag nekkoon itam nag ñu ñu xam nag ci ak tedd nga doomam yooyu itam nag nekkoon itam nag ku ñu xam nag ci ak baax nekkoon itam nag ñu ñu xam itam nag ci aw yiw nekkoon itam nag ñu ñu xam itam nag ci barke moom sëriñ Modou Awa Balla Diouf nag mu ñuy xamal ne yu baax nag yu mu xam nag ci moom ñu gën koo xam nag ci sëriñ na Faty Diagne Diouf nekkoon na nag ku baax nekkoon na itam nag ku sàmm nekkoon na itam nag ku fegu nekkoon na itam nag kuy sàmm nekkoon itam nag ku ragal yàlla di jëmm itam nag ju teey nekkoon itam nag ko amoon diine li koy firndeel nag mooy ni mu fonke woon nag jaamu nag suñu borom bi nekk itam nag ku daa joxe itam nag wër wërsëgam jëmale ko itam nag ci yoonu yàlla ku daa sàmm itam nag guddi yi la waaye ku daa taxawu itam nag bëccëg yi la ci wàllu koor ci gàttal daal dundam gépp itam nag suñu borom nag tabaaraka wa taala itam nag la ko joxoon jëmm la joo xam ne itam nag li ko waroon ci digganteem ak diineem itam nag def na ko li ko waroon itam nag ci digganteem ak nag ay dëkkandoom itam nag def na ko itim nag njabootam la itim mooy gi ko suñ borom nag jox ak itim nag njaboot gi nga xam ne nii nag daa séq ak ñoom itim nag ci sëriñ tubaa seexul xaddim ñu nekk nag ay taalibeem ci aw fit nag ak muñ nag luñ war a def itim nag la cay mbañum rus itim nag ñu daw ko mu nekkoon itim nag ku laap ku daa yar itim nag ak njabootam itim nag ci ak laap daa leen xiirtal itim nag ci jaamu yàlla xam ne ne kat suñ borom nag jaamu ko dong nag moo tax itim nag mu wàcce ñu fi su masaa toog itim nag ak itim nag ak njabootam daana leen nett li itim def lu baax itim nag lu la ci man jaale tim nag ci gaay yu baax nag yi ko fi jiitu woon wala yi fi jiitu woon rawatina nag sëriñ Mor Diouf Diatty daana leen ci wax itam nag lu bare bare bare mu nekkoon itam daal koo xam ne nii ku làmboo daal la woon lépp loo xam ni nii daal waaju baax itam nag daana ko def daana ci xiir itam nag ak njabootam ci loolu rek lañ gis itam nag mu di ko def ci ab tënk daal wasar yii ko sëtam defal di sëriñ Moodu Awa Balla Diouf tënkal ñu nag dundug nag maamam ji nag di sëriñ Ceerno Faati Jaan Diouf taxawaayam nag bu yaatoo yaatoo yaatu daal bu mu nekke woon nag ci kaw suufa moom la ñu tënkaloon nag ci kàllaamay arapa moom sëriñ Moodu Awa Balla Diouf nag moom sëriñ Cheikh Diouf nag bu Tuuba Aliya ñu teewlu ko aouzu billah bismillah inna waliyallah wa ma tawfiqi illa billah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa radiyallahu an sayxina wa imamina wa rajaina abdillah wa xadimi rasulillah wa radiyallahu aydan an sayxina wa waliyina wa qudwatina almisbahu almunir alladi bismihi naltaqi wa bi birrihi naddaci wa bi xayrihi naktafi sëriñ moor juuf jatti wa ala abnaihi aamatan almacrufuuna bilkarami walxurfi walxayri walbarak wa bacdu fa haasihi qitxatun xaqiratun fi axlaaqi sayidi alkarima sëriñ cerno faati jaan juuf kaana saalixan afifan taqiyan tayiban mutadayinan kasira alsalaati walsadaqa qawaaman sawaaman mustasliman li rabbihi wa kaana qaa'iman bi waajibaati diinihi baynahu wa bayna rabbih wa fi ma baynahu wa bayna jiraanihi wa kaana murabbiyan li awlaadihi ala addiini walsahaamati walmuru'ati wa tahara kama kaana yuraqibuhum fi lcibaada wa yaxkii lahum kasiran min xikaayati alsaalihin fadlan ala dalika faqad kaana mutaxalliyan bi makaarima alaxlaaq mulaasiman li maxaamidi alaqwaali walafxaali walaxwaal wa kaana aydan raziinan mutaaddaban muhadaban qalila alkalaam sahiidan fi fi ma yajlubu lmalaam mustanisan bilqur'ani wa qiraatih laa siyama waxta alchahri warramadan wa nastaxlisu bima sabaqa ann hadha arrajuli kaana min almuminina almuxsinina alsaalixin li ann jamica sifat arrajuli alsaalixa ijtamacat fih wa naktafi an naqula kaana ka walidihi alkarim qalban wa qaalaban wa axiru dacwana an alhamdulilahi rabbil alamin ab xalifaam nag mooy sëriñ Ceerno Maam Juufa li ko dale nag ci atum 2003 nag nag ba nëgëni ñu koy ñaanal nag suñu borom guddal aw fanam nag te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu waajuróom boobu ak mbooleem nag ñu mu séqal Serigne Thierno Faty Diagne Diouf mii Serigne Thierno Faty Diagne Diouf nag am na bis nag buñ koy fàttaliku nag ci luñ tudde ak màggal bis bii nag fukki fan ak juróom nag ci weeru maamu koor ci boobu nag la génnoon àdduna ñaar fukki fan ak juróom nag ci weeru rajab moo dëppoo nag ñeen fukki guddi nag Serigne Thierno Faty Diagne Diouf mii bis boobu nag dëppoo ñeen fukki guddeem di ñaar fukki fan ak juróom nag ci weeru rajab moom nag njabootam nag jàpp jàpp di ko ci fàttaliku nag ci lu ñu tuddee ak màggal ci dëkk boobu mu nekkoon nag di daaru juufa ñu ñaan ca turandoo maam na Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru wa doomu sëriñ Moor Juuf jati ba ka ay magam doy loo woon nag defoon ko imaam yàlla ñu ko suñ borom fayal nag te yokk nag ay leeram te itam nag ci barkeem lii di jafe-jafe réew mi itam nag yàlla na ko suñ borom saafara ci darajey waajuram nag sëriñ Moor Juuf jati amiin